وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون خمغا سونو ريو لي تخ مو متي يالا ني يالا ييرم واي ناني غور غورلو تي دي وخانتي دغ امنا كيسيون يو خامني دام كو بوغ لاج خامو ديغن ما سي تونتو ولا ديت damaa dégg démb lu ma yéem laaj bi nag ma bëgg koo laaj képp kuy déglu lan mooy laaj bi ndax benn yonent ci yonent yàlla yi am na droit teggil nit jaamu yàlla mooy benn question bi wuy leen ma ah waaw imaam bi da nee na déedéet kon ndeke benn yonent amul droit teggil la jaamu yàlla doon te julli ah am yonent amul droit ne la non yow jibril wàcce naa la julli yéen a ko wax de waaw lu yonent amul ndax wàlli yu am na ko ndax wàlli yu am na droit xool taalibeem ne ko wàcce naa la julli wàcce naa la woor waxuma ko de yéen a ko wax waaw kan moo digle julli ah allah moo digle julli ndax julli muhammad moo ko digle wala yàlla ko digle yàlla moo ko digle ndax muhammad am na daraja bu tolloog wàcce kenn julli ci jàmm na la noo yow wàcceel naa la julli ndax muhammad mus na koo def ndax am na am déedéet mbokk yi kan la julli wàcc xam naa ne mën naa jafe ci ñu bari ñett la julli wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli ñett la wàcc an sabi hatta yuhtalam xale bu ndaw julli wàcc na ko ba mu majeur wa an naim hatta yastayqiz kuy nelaw julli waru ko ba mu yeewu wa anil majnuun ak dof ba mu wér ak dof kon ndeke ku julliwul te tay ko dof nga dof rek loola julli di wàcc mbokk yi beneen bi mooy ndax am na beneen jaamu yàlla bu mën a remplacer julli am na ah man de dégg naa Sénégal ñu ne boo saraxee julli wàcc na la yow wooruloo quoi mais joxe ndogu amul problème julli ay caaxaan la boo joxee ndogu rek amul problème dégg naa ko Sénégal da xaw ma yéen dégg ko xaw ma wala amul dégg naa ko de mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ñëw ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla ma ànd ak yow dem àjjana lan la ko yonent bi tontoon xam ngeen benn waaye daa ñëw ci yonent bi ne ko bi dama lay ñaan nga ñaanal ma yàlla nga accompagner ma ñu dem àjjana xam ngeen lu ko yonent bi tontu daf ko ne ainni ala nafsika bi kasrati sujud yonent bi ne ko boo bëggee loolu am dimbale ma ci julli del julli julli yu bari su ko defee li ci des dinaa la ko jéem sama borom ko mbokk yi xam ngeen lan lañu ñu njëkk a laaj jaam bi yowmal qiyam awalu ma yuxaasabu alayhi al abdu yowmal qiyama assola julli lañu ñuy njëkk xool su julli baaxee yëf yi baax na su bonee yàqu na Sénégal ñu ne déedéet yàlla xol bi lay xool sénégalais yi moom yow mal am ku dekk yàlla du la laaj julli xol bi lay xool quoi ñëw xool sa xol ndax sa xol baax na nan ngay ñàkk a jullee ñàkk a woor sa xol baax loolu du dëgg ku julliwul wooroo sa xol mun baax munoo tabe munoo baax munoo ragal yàlla ndax ñi gën ci kaw suuf tabe baax ragal yàlla dañuy julli mbokk yi bu ñu naxante ay jullit du ñu naxante li ma gën a yéem ci question bi nag mooy ab borom xam-xam lañu ko laaj mu nekk fa naan diw xam nga nitu yàlla la diw moom yàlla mën naa am mu may ko lu nu xamul ba mu àgg ci wàcce nit julli déedéet lenn rek la ñu mën a wàccee nit julli borom dof ku dof moom kenn wàcce wala julli yàlla la ko wàcce kon ku dof wàcc na bu fekkee loolu amul yow xale bu góor bi may dégg te nga xam ni dee chaque jour nga dee mooy nelaw bu fekkee daawoo julli dellusil ci julli del sel ci julli yàlla moo la bind bind ma bind ñëpp sant ñu julli kenn mënu laa teggil julli amul du benn waliyu ci waliyu yàlla yi du benn xutbu ci xutbu yi du benn yonent kenn mënu laa teggil julli te amoo droit nga topp nit ci ñàkk julli mën nga koo bëgg mën nga koo topp est-ce que xam nga ni ñàkk julli mën naa yóbbu nit bu ci kéefër yonent bi nee na bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri salaa nee diggante nit ak bokkaale ak kéefër nee na julli boo jullee rek julli nga boo jurul nag yaa def sa bopp leneen malaaka yi day bi ñu nekkee safara waa safara dugg safara di jooyoo di yuuxoo lakk bi metti am na question bu pertinent bu leen malaaka yi laaj ku xam question boobu allahu akbar waa safara dugg nañ safara di jooyoo ay jigéen ki góor lakk bi metti lool ñu naan malaaka yi dimbale leen ñu mbir mi metti na bañ naan yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk maalik waxal yàlla fay nañu ba mu doy tee mu ñoo mu jeex tàkk ne malaaka yi dañ leen a laaj maa salakakum fi saqar lan ngeen def ba mbugal mu metti mi dal leen waa safara duñu fen waa ajjana duñu fen lan lañu tontu qaalu yàlla nee na ñoo wax de lam naku minal musalliin bokkuñu woon ci ñi doon julli mbokk <laughs> nañ julli waay